l'exclusion c'est pas l'exclusion la république c'est c'est une révolte contre les inégalités loolu moo tax ñun dañu ko gisut tey lan moo tax am ñoo xamante ni bu ñu feebaree war a faju am ñoo xam bu ñu feebaree war a ñu faju lan moo tax ñiy war a jàng ñii duñ jàng nekk ci daara di jàng kenn ci jàmbaar yi moo ngi nii ci sunu ginnaaw muy Babacar Seye nekk ci daara di jàng ba ci yàgg mu ne waaw tellement yëri lii ñuy jàngale ci école tubaab bi dem di ko yër ba ci yàgg mu ne tellement def candidature at mi at ma ca mu def sixième ba ci yàgg mu ne def examen bële rek def BFM at mi bi mu defee BFM at mi ci topp mu def mu def baccalauréat dal di am bac dal di dem avec la mention daal di dem fi nga xamante ni moom mooy université Gaston Berger dem Gaston Berger atam mu njëkk te ci daara ji la génne de moo tax daara ji am solo atam mu njëkk mu créer entreprise bay recruter quarante personnes au niveau de l'UGB première année te valeur yooyu ci daara la ko jëlee léegi nag ñu ne la booy def politique sax dañ naan la ah léegi politique moom boo koy def nekk fi di wax ay ay yàlla nee na di wax bible bi wala nga naan aaya alxuraan yi nii eh, politique du lool de waa politique mooy lan kon lan mooy politique ba kenn waru cee tudd aaya alquran kenn waru cee tudd hadis yonent bi kenn waru cee tudd bayitu Serigne Touba wala Maulana Cheikh ma Niass wala Seydi Hadji malik lan mooy politique boobu boobu réew mi xamu ko réew mi dafa soxla des politiciens des hommes politiques yu koy ressembler loolu yàqu-yàqu la boo xamante ni. ñun dañoo jóg ngir soppi ko encore une fois soppi président Abdoulaye Wade 1974 ba soppi la taxoon mu yàlla na fi yàgg te wér la taxoon mu tuddee ko soppi xam na ko mbir yi foog ñu soppi ko mbir yi foog ñu soppi ko ña fa nekk ña fi nekkoon nag ba tey ne soppi du am ñoo ñoo fi ne ba tey nee nañ mbir yi kenn du ko soppi dañ koy doxale nii ñu koy doxale il faut que ñu soppi ko donc empathie dañ ko wara indiwaat ci politik mooy yërmande yërmande dafa ñàkk lool ci politik politique it kenn du ci ñëw ngir defaru dañ ciy ñëw ngir defare kenn du ci ñëw ngir yàqe dañ ciy ñëw ngir defar kenn waru cee yàqoo kenn waru cee yàqe kenn waru cee yàqoo kenn teggin la politik xam-xam la politik itte la loolu moo tax ñun de ku ñuy xaar ci xaste ak sosalaate ak waxal nit lu ñu wóorut ak ŋàññante dooñu ci gis te lu muy maye duñu ko am waxante lu bon xastante sosalante ñàkk teggin ak worma lu muy maye duñu ko am waaye nag teggin ak xam-xam ak itte bu neexee yàlla lu muy maye dinañ ko am ñoo ngi gërëm bu baax encore une fois ñi ñu gunge ci liggéey bi ak ñi ñu ci àndal ba ñu jógee ba tey di leen wax ne leen assemblée nationale position bi ñu fay am statut bi ñu fay am mooy bi ñu askanu Sénégal tànnal mooy kat taxawu dëgg mooy bañ a dugg ci combine politik bañ a wut ay privilège wu yóbbu ñu assemblée nationale wut ay honneur yóbbu ñu assemblée wut defar sunu dundin lóbbu ñu assemblée nationale moo tax keroog bi ñu yëkkatee sunu loxo ñu ni dugg rekk yitteeluñu waaye duggiin bi moo ñu yitteel te li ñu ci bëggoon mooy bu ñu duggee mën a am sunu liberté bu mën a tax ku fa mën a toog ñu mën a wax ak yow li nga xamante ni moom mooy dëgg ak yóbbante askan wi askan woowu voteel ñu ak ñooñu nga xamante ni voteeluñ ñu ameel nañ leen cant goo xam am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem te dinañ dellu siwaat ci yéen ngir sant leen gërëm leen waaye déglu leen dina ñëw ci gox-goxaan yi gën a sori dina ñëw ci pàkk yi gën a sori ngir yëgal leen yéen ñi ko yëgul woon ci li ñu ne ñi yëgoon ci li ñu ne ñu feddali leen li ñu ne déglu leen tijji suñuy nopp dékk leen suñuy gafaka ngir ngeen wax ñu li nga xamante ni xam nañu ko ba pare ngeen fàttali ñu ko muy li ngeen di dund ak seen dundin ngir ñu ñëw assemblée nationale ëmb boobu nag ñu teg ko fa lépp lu am njëriñ ñu waxtaane ko lépp loo xamante ni amalul njëriñu askan bi yàlla na buñ ñu ci dégg te bu ñu sañoon képp kuy ñëw ànd ak ñun te ñoo ngi tàllal suñu loxo doomu Sénégal yépp ngir lii ñuy def ñu gën koo mën a def ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew ngir ñu gën ko mën a def ngir ñu gën ko mën a taxawu ngir ñu gën a mën a saytu Sénégal bi nga xamante ni moom lañu bokk te Assemblée nationale dafa am solo c'est le lieu par excellence de la démocratie du débat démocratique moo tax boo demee dëkk bu mel nii France tey bu ñuy financer sax parti politique yi dañ leen a en fonction ci ci ci seen représentativité au niveau de l'Assemblée nationale Assemblée nationale kon kenn waru ko caaxaane kenn waru ko fooye kenn waru fa nekkit nekke fa tàccu kenn waru fa nekke saaga képp koo xamante ni yuuxoo ak saaga ak xaste jàpp nga ne mooy tax ñu yóbbu la fa xamal ne ko wor sa askan nga képp koo xamante ni it tànn nañ la ñoo ngi lay ñaan ña la tànn bu leen wor bul tas seen yaakaar kon ñii ñu tànn tey dañ ñoo tànn ñun ngir jàpp ne lii fi ne am na lu ko gën mooy système bii dañ ko war a soppi soppi bu président Abdoulaye Wade dañ ko war a soppi li fi ne dañ ko war a soppi doxalin bi baaxul choix bi choix des hommes comme des femmes dafa des il faut que ñu accepter jël les meilleurs sénégalais confier leen les postes les plus stratégiques pour ñu doxal ko ba pare ndaw ñi encore une fois ñi nekk ay xale di jàng maa ngi leen di digal ngeen gën a jàng gën a góorgóorlu ñi ci yor métier maa ngi leen di digal ngeen gën ko fonk gën ko mën te bañ ko caaxaanee ñi nga xamante ni seeni waajur a ngi dundu maa ngi leen di ñaan ngeen fonk seen waajur te wekk leen fonk leen leen wekk leen leen bëgg leen leen soo bëggul sa waajur soo bëggul sa kër soo bëggul sa espace immédiat mënoo amal njëriñ pénc mi ku la dénkit day nax boppam rek ku la dénkit day nax boppam rek kon ndaw ñi bu leen kenn soriloo seeni waajur bu leen kenn foofu lay jeexale bañ loo Sénégal Sénégal dëkk bu màgg la yàlla defal nañu lépp réew mu yàlla bëgg la lépp am nañ ko booba ba tey li ñu sonal rek mooy dañuy dénk ay yaafus rek ak ñu ñàkk yërmande rek waaye lépp am nañ ko kon nañu góor góorlu bu baax fonk li ma leen wax léegi li nga xam mënta ñàkk te dinañ leen taxawu dinañ taxawu culture bi ak ñi nekk dans les métiers de la culture dinañ taxawu sport bi ak ñu nekk dans les métiers du sport di ci yëngu sonn ci dinañ taxawu mbay mi waxatuma sax agriculture ñun on parle des métiers de l' agriculture waxatuñ sax élevage on parle des métiers de l' élevage waxatuñu sax pêche on pale des métiers de la pêche te loolu pour mu mën a am dañuy taxawu temm ngir que le convoqué sans délai bu ñu defee gouvernement bi un conseil ministériel sur l'industrie parce que industrie mënta ñàkk wala un conseil présidentiel sur l'industrie kon loolu lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy dëggal la lu ñuy taxaw la kon ñun ñi nga xamante ni muy la coalition les serviteurs bi nga xamante ni sunu borom defaloon nañu tawféex ak soññuñu ak ñaaxuñu ak dénkuñu ñu jiite ko Euh, ñoo ngi wax askanu Sénégal ne leen nekkuñu fenn nekkuñu ak kenn ku dul opposition Sénégal bu dëgër boo xamante ni opposition opposition Sénégal bu dëgër boo xamante ni kenn du ko moom kenn du ko foowe kenn du jënd ngorom kenn du jënd yaakaar yi nga xamante ni dafa ko am ci Sénégal waaye bu dëggu lay doon bu am xam-xam lay doon bu am teggin lay doon bu bëgg Sénégal lay doon bu bëgg magi Sénégal lay doon bu jox cër Sénégal lay doon bu ittewoo Sénégal lay doon fàtte boppam assemblée nationale ñun ay destin personnel ñu fa ay ambition personnelle ñu fa taxawal Sénégal moo ñu fa yóbbu te Afrique lii moo tax mu tardé pers on ne s'interroge pas on s'interroge sur le nombre de mandats mais on s'intéresse pas du mandat qu'est-ce qu'on va faire du mandat ñun ce qui nous intéresse c'est bu ñu xëyee lan la ñuy def ci kóolute googu ak yaakaar yooyu jox ñu ak teg suñu kaw donc loolu moo tax tey la position wala le bi ñuy am comme ni ngeen ko xamee bi ñuy am comme ni niñ ko xamee mooy loolu sénégalais yi bëgg ci ñun mooy taxaw taxawaay boo xamante ni dëgg lay doon itte lay doon Euh, euh, taxawaay boo xamante ni bu am njëriñ lay doon pour askan wi di leen wax ne seen yaakaar yi dégg nañ ko xam nañ ko te duñ ko war mukk ci àdduna incha allah dinañ leen taxawu bu wér waaw dinañ leen jooyle bu wér dinañ leen yuuxule seen i jafe-jafe bu wér saa bu ngeen gëstoo di ngeen ñu gis loolu moo tax liggéey bii ñuy def dañ ko bëgg a ànd ak yéen moo tax ñu leen di tàllal seen loxo ne leen ñëw leen ñu ànd mën naa nekk ñu soppi réew mi teg ko ci yoon woo xamante ni wu mucc ayib lay dem ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax di ñaan yàlla mu yóbbuñu ci li nga xamante ni moom mooy rentre parlementaire bu mucc ayib ñu dem taxawal leen assemblée nationale taxawaay boo xamante ni bu mucc ayib la boo xamante ni Sénégal de yàgg naa am euh, assemblée nationale waaye ñii ñu gis ñu dugg assemblée nationale bii ah gis nañ ci ñoo xamante ni de sunu yaakaar dal na ci lool ne du ñu bàyyi mukk Sénégal du ñu tas yaakaaru Sénégal te loolu euh, alal du ko jënd am na ci loo xamante ni alal mënu ko jënd yaakaar bi nit ñi am ci yow yaakaar bi xale boobu am ci yow doon la topp. doon la topp di la gëm la yaakaar la bëgg voté ak yow mag ñi di nekk ak yow kilifa diine yooyu woo la ne la am nañ yaakaar ci yow waaw loolu nan nga mën a dem nan nga mën a demee sàmm ko ci ab table di ko jaay loolu kenn mënu koo jaay di loolu amul njëg di loolu poste jënd ko privilège jënd ko honneur jënd ko loolu benn njëkk rek la am muy ngërëmal yàlla ni nit ki di woore suba ba ngoon jot pour doge tàndarma ak yu baax yooyu ñuy doge noonu la nit di doge ci àdduna ci woore ci yu bari yu bari da koy woor ngir nga doge ngërëmal yàlla ak ngërëmal askanu senegal kon xa ñoo ngi leen di xamal ne lu jiitu ngeen ñuy xam ci toogaay ya ñu toogoon lañu wooroon tey lañ ko gën a woor te incha allah dinañ ko ànd ànd bu mucc ayib maa ngi leen di gërëm di leen sant euh, di wax ne dama koy tënk rek en version française ci li nga xamante ni moom moo sabab li nga xamante ni moom moo sabab contre Permettez-moi de remercier le peuple sénégalais dans son entièreté et son entièreté. Sénégalaises, Sénégalais, chers compatriotes, à l'entame de nos propos, au Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala, qui nous a permis aujourd'hui d'être devant cette auguste assemblée depuis cet endroit et parler avec le Sénégal et les Sénégalais qui vivent en Afrique et partout dans la diaspora. notre sentiment de gratitude pour l'hémicycle. Remercier ceux qui, ont, accompagné ce processus électoral depuis le début, depuis le 22 avril, le jour où on avait déclaré notre candidature. Remercier du fond du cœur celles et ceux qui ont cru depuis le début à cet idéal que nous avons porté de les Sénégalais, de prendre en charge les préoccupations et les aspirations du peuple sénégalais au sein de l'Assemblée nationale. Remercier tous ces jeunes, femmes, adultes, ces étudiants qui faisaient des nuits blanches avec nous pour saisir le parrainage et qui retrouvaient les salles de classe à 8 heures. Ils passaient les nuits avec nous et retrouvaient les salles de classe. Ces étudiants, ces ouvriers qui ont aussi tout abandonné, euh, en l'occurrence le mouvement des étudiants et alliés, des, des ouvriers et alliés euh, du Sénégal, des artisans et alliés, qui ont voulu renoncer à leur candidature et nous accompagner dans cette élection. toutes les couches et forces du Séné du du Sénégal remercier les foyers religieux euh, sans pour autant être exhaustif remercier Touba La Sainte Tivaouane Médina Baye Léona Niassène Ndiassane Layène Yoff Layène Médina Gounass le clergé le clergé et tous ces foyers religieux du Sénégal qui ont cru en nous et qui nous ont accompagnés et qui sont aujourd'hui représentés dans cette salle. Remercier aussi du fond du cœur les alliés qui ont été avec nous depuis le départ, qui sont aujourd'hui ici avec nous. Je les remercie l'engagement et l'altruisme, et surtout cet engagement désintéressé au sein euh, au service de cet idéal euh, que nous avons tous porté ensemble. Remercier aussi nos familles respectives euh, qui ont souffert de notre absence. Mais le Sénégal en vaut la peine. Le processus du parrainage n'a pas été du tout, n'a pas été de repos du tout. Nous avons beaucoup galéré. Nous avons souffert. Mais nous y avons cru. Nous nous sommes battus avec les moyens du bord. Ce n'était pas du tout évident. Nous n'avions pas les moyens qu'il faut pour pouvoir mener à bout. Mais la volonté des serviteurs, la volonté des alliés, comme le mouvement Taxawu Liggéeykat yi, comme le parti MPR comme bokk ci dëkk bi defar dëkk bi de Valère Samb comme tous les autres mouvements qui sont avec nous comme les écologistes avec madame Yacine Sey qui nous ont accompagnés comme tous les autres mouvements mën naa nekk de Babacar Sey le mouvement de développement et de la citoyenneté de Omar Diop de Kébémer et tous les autres qui nous ont accompagnés qui ont cru en ça ont fait preuve de robustesse pour pouvoir être là aujourd'hui pour passer le cap du parrainage. Et par la grâce de Dieu, nous l'avons fait de très belle manière et avec beaucoup de doigté sous euh, le contrôle euh, de notre mandataire national, Madame Pendadien, qui a abattu un travail remarquable. La pré-campagne, aussi, vous avez été là chers compatriote la campagne aussi jusqu'au scrutin. Remercier aussi tous ces Sénégalais qui nous ont jamais rencontrés et qui ont été siégeants, qui ont été mandataires, qui se sont battus le jour du scrutin pour pouvoir rendre possible cette candidature, pour nous amener euh, au niveau de l'hémicycle. Remercier ceux qui ont voté et ceux qui n'ont pas porté leur choix sur nous. Remercier aussi et lancer un appel à ces Sénégalais qui fini aujourd'hui de battre, de battre le record d'abstention, le taux d'abstention qui est énorme. De 60%, plus de la moitié, plus de la moitié des personnes dans le fichier électoral n'ont pas jugé utile de voter. Nous leur lançons un appel, un vibrant appel pour leur demander de ne pas baisser les bras. Le Sénégal nous appartient. Et ce Sénégal réconcilié avec ses valeurs fondatrices doit être l'affaire de tout le monde. Nous leur